da ngay dem élection. bu soobee yàlla bu dee maa ngi dund. waa Bennoo nañu déchanté doo dellu ah, si waat pourquoi Bennoo. parce que yaa wax TFM ci ak Papa Ngagne njaay nga ne yaa ngi waxtaan ak Amadou Ba waxtaan bi ci lan la porté. mais Amadou Ba dañuy waxtaan. non nga ne yéen a ngi waxtaan waxtaan bi ci lan la porté. bu fekkee ne Amadou li mu bëgg loolu la bëgg est-ce que war ngeen am jotu waxtaan. non léegi waxtaan bu dee cadre boobu la waxtaan non. bu dee loolu la moom non gëj naa gis sax non ma ànd ak ay boy yi nga xam ne xaw ma ban condition la ñuy nekkee may ñëw di tayalee affaire boobu mënul nekk je ne négocie pas en douce. mais nga am parrainage nga ñàkk am. parrainage doo dem rejoindre ak Benno. non dama ne pourquoi du ma am parrainage pourquoi nga xalaat ni bennoo léegi day dem élection. lu tax Benno dem élection. ah pourquoi day jaar parrainage. ah dañuy jàll parrainage bennoo kay mënuñu mënuñu mu mu mënuñu manqué euh, nu mu tudd euh, parrainage populaire euh, parrainage citoyen wala parrainage des élus pourquoi bu ñu jàllee parrainage citoyen nag mënuñu mënuñu lajj mënuñu mënul nekk ko lan moo lay lajjloo ci parrainage bennoo waaw non qu'est-ce qui fait que nga échoué ci parrainage nga bañ nga bañ a respecter critères yi c'est un nga bañ a respecter critères yi. non c'est nga bëri doublon. non maanaam boo rejeté parrain mooy un parrain qui n'existe pas où les informations sur le parrain sont fausses. non moom mooy scénario boobu moom bàyyi ko mënul nekk bennoo seen candidat dina ah, am na ñaari choix. li ma la wax rek mooy li ma la wax ci bi ñu jógee nii dernièrement ak séminaire DGE e bi. Hmm. gëm naa ne député yi la ñuy jaar. benno ah waaw waaw ñi ma wuñu tenter le ah. ils n'osent tenter le parrainage citoyen. waa léegi je les mets au défi nañ ko wax publiquement xam nga lan laa bëgg quel que soit le cas ils vont pas utiliser les ah. nga wax ma. est-ce que da nga décider ne yow ak waa Benno vos routes se séparent ici en deux mille vingt trois wala est-ce que y a possibilité boo jàllul parrainage nga rejoindre leen wala boo jàllee parrainage bu premier deuxième tour amee nga dem rejoindre sa famille. naturelle d'abord je vais à cette élection avec l'espoir de parce que li ñuy wax mu ngi dugg ci xolu sénégalais yi te nag man duma dem ci làmb di naan damay uti defet mais mën nga jël engagement nga ne mais mais mun naa xam nga jaam ak pexeem yàlla ak dogalam du dëgg quand il y a un deuxième tour et que la coalition Diao 2024 n'est pas parmi les deux premiers nag. Mm-hmm. naturellement il faut que je parle deux voilà. ah donc da nga du amul amul retour au bercail. non da ngay waxtaan ah, non c'est-à-dire si je suis troisième. Mm -hmm. par exemple ou quatrième. et que Benno est, est, est parmi les deux qualifiés pourquoi je ne vais pas parler au candidat de Benno et candidat de l'opposition d'accord mais moi je ne m'appartiens plus parce que nous on est en coalition dafa am ay nit yi nga xam ne ñoo ànd ñoom ñu ñooy tegandoo benn charte ñoom bu ñu ne nii lañ koy doxalee noonu lañ ko war a doxalee mais dama ne li nga xam ne sax maa ngi ko doon njort ci rafetaay ci suñu ànd ñu ngi koy yàq